ñaar fukk ak ñett esaaw ak yankooba asalaamaaleykum mbokki déglukat yi ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am na nu mbégte ci li nu mën a dellu tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci émission bi weesu gëstu woon nanu ci nettalib tabaski jàngoon nanu ni yàlla nattoo Ibrahima sant ko mu jël doomam Isaaxa dem ci tund wu sore joxe ko fa mu nekk sarax suñuy làkk gisoon nanu ni Ibrahima déggale yàlla fekk sax yàlla moo ko digoon ne ci isaaxa eh, xeet wu bees wi waroon na soqi ko noonu gisoon nanu mujj gu rafet ga ko boroom bi jagleel ibrahima nag mujj la rendi doomam ndaxte yàlla ci yéenem ju rafet indi woon na kóoyum xar ngir mu wuutu ko xar ma amul woon genn tooñ moo dee te doomu ibrahima mucc gisoon nanu ci nettali bu neex boobu ne xar ma wuutu woon isaaxa ca tund wa misaal la woon ci ramukat bu sell bi naroon a wàcc dee ci tund woowu ci palaasu doomu aadama yépp loolu moo taxoon yonent yàlla ibrahima tudde tund woowu yehowa yire muy tekki boroom bi dina ko indi am na yeneen nettali yu nekk ci tawret ci mbirum ibrahima wante amunu jotu jàng lépp waaye bala nuy jóge ci nettali ibrahima di jàll ci mbiri satam ya am na lenn li yàlla wax Ibrahima te nu war koo xam amoon na bés yàlla wax Ibrahima li nara xewi ak askanam mu ne ko déglul bu baax li ma lay wax saw askan dina nekk ay doxandéem ci réew mi ñu moomul ñu di leen def i jaam lakkal leen diirub ñeenti téeméeri at waaye réew moomu leen di defi jaam dinaa leen ate bu loolu amee nag saw askan dina ca génn ak alal ju bare ci kàddu yooyu la yàlla doon yëgle ni askanu ibrahima naroon na nekke ay jaam ci réewum misira wante yàlla digg na it ne gannaaw ñeenti téeméeri at yooyu dina leen goreel ci nootaangeek waa misra kon fii ak ñeenti njàng bu soobee yàlla dinanu tàmbale gis ni loolu lépp xewe woon tembe ni ko yàlla waxe woon ibrahima ci saar ñaar fukk ak juróom nag ci lanuy jàng ci mbirum deewuk ibrahima mbind mi na alal ja ibrahima am yépp isaaxa la ko jox noonu ibrahima amoon na téeméeri at ak juróom ñaar fukk ak juróom mu door a delloo ruwam faatu ku gudd fan la woon màggat ba kumur mu door a fekki ay maamam ba mu faatoo doomam ya isaaxa ak ismaila suul ka ca xeeru makpela janoog mamre ci biir toolu efron loolu mooy tool ba ibrahima jëndoon ca njabootuk xet foofu lañu suul ibrahima ak saara jabaram noonu ibrahima dugg ci ndamu jataayu borom bi mu xamoon te bëgg ko léegi nag nan lanu mën a jeexale te tënk sunu njàng ci mbirum yonent yàlla ibrahima xanaa ci ñaari laaj ak seen tontu laaj bu jëkk bi mooy lu taxoon yàlla woo ibrahima mu toxu dem ci meneen réew ndaxte yàlla dafa fasoon yéene def ci ibrahima xeet wu bees wu ramukat bi waroon a jaar ba ñëw ci àddina ñaareelu laaj bi mooy lu tax yàlla àtte Ibrahima ni ku jub te nangu ko ci jataayam bu sela ba faaw ndaxte Ibrahima gëm na li ko yàlla wax su fekkee ne sax yombul Ibrahima ci kaw gëm ci kàddug yàlla la muccee te du ci kaw yi jëfam moom la mbind mi wax bi mu naan Ibrahima gëm na yàlla te yàlla jàppe ngëmam ni njub ci saar ñaar fukk juróom ci téereb njaalbeen ga mbind mi day wéy ci nettalib askanu ibrahima nanu jëm kanam nag ci tawret ba dégg nettalib isaaxa ak ay seexam mbind mi nee lii mooy nettali bi jëm ci askanu isaaxa doomu ibrahima isaaxa ibrahima moo ko jur bi isaaxa amee ñeent fukki at mu takk rebeka doomu betuwel mi bokk ci giiru aram te dëkk ci diwaanu padan aram te muy jigéenu laban mi askanu ci aram gannaaw ga isaaxa ñaanal jabaram ci aji sax ji ndax li mu amul doom te aji sax ji nangul ko jabaram daldi ëmb te doom yi di buuxante ci biiram ba rebeka naan lu waral lii di ma dikkal mu dem nag laaj ci ndigal aji sax ji te aji sax ji tontu ko ne ko ñaari giir nga ëmb nara jur ñaari xeet yuy xaajaloo wenn wi ëpp doole weneen wi mag yi surga wu rakk ji bi jamonoy mat wi wéye nag noonu la mucce ñu nekk ay seex ka jëkk ka juddu dafa xonq sëq ba mel ni mantoom kawar ñu tudde ko esawu maanaam ku bari kawar gannaaw ga ka ca des topp ca loxo ba jàpp ci tëstanu esawu ñu tudde ko yanqooba maanaam ku jàpp ci tëstan baleen rebeka di jur fekk na isaaxa am juróom benn fukki at noonu gune ya di màgg esaawu di rëbbkat bu ñaw di ku yebu ci àll bi yanqoba moom di nit ku teey te gàtteñlu noonu nu gis ne uh, isaaxa ak rebeka am nañu ay seex ñu tudde leen esaawu ak yanqoba ay seex lañu woon wante dañu wuute lool bi esaawu màggee yëfi àddina yiy wéy rekk la fonkoon wante ba moom fonk yëfi yàlla yi sax ba faaw esaawu faalewul woon li yàlla digoon ibrahima maamam ak isaaxa baayam ci lu jëm ci xeet wu bees wi waroona soqi ko ci moom waaye yanqoba moom faale na digi yàlla lool esaawu moo doon taaw kon ci xalaatu nit moom moo doon ki waroon a jot ndonal taaw bi nekk baayu xeet wu mag wu yàlla digoon maamam ibrahima ak baayam isaaxa wante laata seex yi di juddu sax yàlla waxoon na rebeka seen yaay ne mag ji dina nekk surga rakk ji noonu yàlla ci limu leen xam lu jiitu seen juddu doon na yëgle ne ndonol taaw bi ak askanu xeet wu bees wi ci yankoba lay jaar te du ci esawu yankoba moom waroon na xaar yàlla bàyyi lépp ci loxob ki am kàttan ngir mu jox ko ndonoli ci jamono ju ko soob wante ba xaaru ko woon nanu jàng léegi ba gis ni ba jëfe woon ngir jël ndonoli ci magam mbind mi nee na am bés nag ba di togg ndambel lantin dajek esaawu jóge ca tool ya xiif ba tële mu ne ba gaawe ma ak sa ndambelu xonq loolu ma duy sama biir ndax xiif baa ngi may bëgg a rey yanqoba ne ko jaay ma tey jii cër bi la nekk taaw may ci ndono esaawu ne ko maa ngi nii ci tànki de ana lu cëru taaw di jëriñ yanqoba ne ko giñal ma jëkk dal di ko def mu jaay yanqoba noonu cër bi taaw yeyoo yanqoba jox esaawu mburu ak ndambe mu lekk naan daldi jóg dem yoonam noonu esaawoo xeeb jagley nekk taaw ndax jàpp ngeen lu bu baax li esaw defoon weccoo woon na ndonol taawam ak aw ñam dafa mel ni su fekkente ne amoon na benn boroom alal bu am ñaari doom góor gi am ay tool ak i kër ak alal ak xaalis bu bare bare te taawam wara donni li ëpp ci alalam wante benn bés taaw bi jóge àll ba gis rakam ji togg ceebu jën ca wetu yoon wa taaw bi daldi wax rakkam ne dama xiif lool may ma ci sa ceeb bi ma lekk wante rakk ji tontu ko ne duma la may dama la koy jaay mag ji laaj ko ne ñaata nga ma koy jaaye rakk ji ne ko sa ndonol taaw mag ji tontu ko ne ah garawul maa ngi nii di bëgg a deew xiif ana lu ma ndonol taaw di jëriñ naka noonu mag ji daldi giiñ jébbal rakk ji ndonol taawam noonu taaw bi dal di toog lekk te naan dal di jóg dem yoonam lan lanu mën a wax ci mbirum taaw bile wecce ay tool ak i kër ak alal ak xaalis bu bare bare ngir benn ndabu ceebu jën lenn rekk moo di ne dafa ñàkk xel naka noonu itam ni taaw boobu xeebe woon barkeb baayam ak alalu àddina noonu la esaawu xeebe woon barkeb yàlla ak alalu alaxira yëf yi esaawu xeeboon moo ëppoon njariñ fuufu alalu àddina ndaxte li esaawu xeeboon moo doon alalu alaxira ak sañ-sañu bokk ci xeet wu bees wi musalkatu àddina si naroon a jaar tey jii nag lan lanu yàlla bëgg xamal jaare la ko ci nettalib esaawu ak yanqoba lii yàlla dafa nu bëgg a artu ngir nu bañ a jaar ci tànk esawu ba weccee barkeb alaxira ngir baneexu àddina yiy wéy déglu leen li kàddug borom bi wax ci loolu nee na moom àddina sépp lu mu jëriñ nit bu ñàkkee bakkanam te nit lu mu war a weccee bakkanam moytu leen nag ba kenn du ñàkk yiwu yàlla walla muy fonk di yëfi yàlla yi ni esaawu mi wecce woon ndonal taawam ngir ak lekk esaawu ñàkkoon na yiwu yàlla ndax fonk di yëfi yàlla yi naka noonu yàlla ngi nuy artu naan bu leen jaar ci tànk esaawu bu leen di barke yi ma leen bëgg a may yow nag ndax faale nga barke yàlla yàlla bëgg na la te dafa la bëgg a barkeel lool waaye faaw nga bëgg ko jox ko palaas bu jëkk ci sa dund faaw nga fonk kàddu yàlla nu raw lekk ak xaalis noonu dinga xam li mbind mi tekk bi mu ne lu bët gisul nopp dégg ko te xel xalaatu ko loolu la yàlla dencal ñu ko bëgg waaw yàlla dafa nu bëgg barkeel lool bëgg na nanu baal sunuy bàkkaar yépp soppi sunu xol bu bon sellal ko feesal ko ak mbëggeel mbég jàmm ak kóolute loolu mooy ndono li yàlla bëgg a may bépp doomu aadama wante faw nga wut ko ak sa xol bépp ku fonkul barkeb yàlla du ko jot mukk ndax bëgg nga jot barkeb yàlla kon faaw nga xam te gëm lii la yàlla dig ci kàddoom ndax xam nga digam yu neex yi te rëy ba ëpp xel ndax fonk nga leen walla boog jëfi àddina rekk ngay wut kàddug yàlla dafa nuy won ne ñaari fànnay nit rekk ñoo am ci àddina si maanaam ñiy fonk àddina tey wut yëf yi ci suuf ak ñiy fonk alaxira tey wut yëf ya ca kaw ci ñan nga bokk yow nanu déglu li ñu bind ci saboor ci saar wu jëkk wi mbind mi nee na cëy nit kee barkeel ki dul jaar ci ndigali ñi bon mbaa muy taxaw ci yoonu ñiy bàkkaar te du toog ci jataayu ñiy gaaral yàlla waaye yoonu aji sax ji lay nooyee mu dikk gëstu gu guddeeg bëccëg dafa mel ni garab gu sax ci bëti ndox di meññ ci waxtoom te xobam du lax lu muy def lépp nangu waaye ñi bon duñu noonu dañoo mel ni xatax bu ngelaw liy yóbbu moo tax keroog àtte ba ñi bon ne dàll ñiy bàkkaar ne mëll ci mbooloom ñi jub ndax aji sax ji fonk na yoonu ñi jub waaye yoonu ñi bon jëm sànku yow miy déglu tey ci wan yoon ngay jaar ci yoonu ñi fonk barkeb yàlla walla boog danga mel ni esaawu mi weccee woon digg yàlla yu neex yi ngir yëfi àddina yiy wey kàddug yàlla dafa nuy faral di dànkaafu ci loolu mel ni fi boroom bi di wax ci kàddoom naan moom àddina sépp lu muy jëriñ nit bu ñàkkee bakkanam te nit lu mu war a weccee bakkanam buleen leen liggéeyal ñam wuy yàqu li gën mooy ñam wuy sax abadan tey joxe dund gu jeex ñam woowule ramukat bi dina leen ko jox ndaxte moom la yàlla tànn mu nekk ndawam moytu leen ba kenn du ñàkk yiwu yàlla walla muy fonko di yëfi yàlla yi ni esaawu mi wecce woon ndonal taawam ngir ak lekk kon nag mbokki déglukat yi fii lañu wara yem tey ci émission bi di jëw nag ndegam neex na yàlla dinanu wéy ci nettalib yonent yàlla ba nu ngi leen di gërëm ci déglu bi su fekkee ne am ngeen laaj ci li nu jàng tey mën ngeen nu bind ci yoonu njub boîte postale 370 yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat ci artu bi nekk ci mbind mu sell mi naan moytu leen ba kenn du ñàkk yiwu yàlla wala muy fonk di yëfi yàlla yi ni esaawu mi weccee woon ndonal taawam ngir ak lekk